asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokku Sénégal maa ngi leen nuyu maa ngi leen di ziare mosuma bëgg wax nag ci wàllu làmb waaye dama gis ab injustice boo xamante ne dafa jëm ci combat guy gi ak Ada Fass nag moo gën a nekk ci yoon ndax moo gën a nekk xale waaye damaa gis guy gi du wuyoo taalibi Cheikhou Tidiane te muy dëgg ci moom te ñun ay taalibi Cheikhou Tidiane lañ ku ñu gis gis nañu solo dañu xam ñun taalibi Cheikhou Tidiane lañ yàlla bu am lu ma woon ci combat bi ma fas yéene nag jàppale ki nga xamante ne mooy sama mbokku taal muy guy gi ma bëgg vidéo bii ngeen véhiculer ko bu mu viral ba guy gi jot si si kàttanu yàlla ak mbaaxam bu ma bu jokkoo ak man xaalis nag mbiru xaalis taxul may wax taalibe Cheikh Oudjiane bi muy wootee moo dëgg ma gis injustice ñu xeex ñu koy xeex pour bëgg ko yàqal te wallaahi azim su jokkoo ak man dana am ndam du ma wax nag ci wàllu làmb wasalaam